mu ngi noonu kon nag ministre bi moom la ñuy waaj a noonu mooy waaj a jël kàddu ngir rek euh, wax ne exactement gis ngeen euh, Aboubacar Jami Sané moom itam ñëw na ngir rek mairie euh, de la situation. si baaxee rek. waaw monsieur le ministre bi nga xam la situation. voilà je vous remercie. J'ai été dépêché en catastrophe par euh, son Excellence M. Macky Sall, le président la République du Sénégal, euh, en pleine réunion du Conseil des ministres, dès qu'il a été informé de la situation qui prévaut ici à l'unité 15 des parcelles Asseni, il m'a instruit d'arrêter immédiatement ma participation au Conseil des ministres et de venir directement ici euh, sur les lieux pour être au chevet des populations et apporter le soutien de l'État. Euh, je voudrais profiter de la situation pour vous rappeler que nous venons de finaliser la stratégie nationale de protection civile du Sénégal. Euh, avec euh, les autorités territoriales, nous avons également identifié tous les bâtiments menaçant en ruine dans le pays sur toute l'étendue du territoire national. Et la stratégie nationale de protection civile du Sénégal sera très prochainement présentée en conseil interministériel, en conseil présidentiel et en conseil pour que des décisions fermes soient prises la question. Et sur place aussi, je me réjouis de la présence euh, du préfet, du sous-préfet, de la police et de SAMU. Donc les premiers secours ont été apportés à temps, en tout cas dès que nous avons été informés de la situation. Il y avait au départ deux dames dans les décombres, le travail nécessaire a été fait, les corps ont extirpés des <clears throat> voilà, des décombres et le pompier vient de les amener euh, directement. Donc c'est une situation que nous regrettons et qui appelle aussi en tout cas que chacun euh, essaie de prendre ses responsabilités pour qu'une pareille situation quand même euh. Bon, au bilan, j'ai échangé avec le préfet, avec la police tout à l'heure. Nous avons identifié deux cas de décès pour le moment. Et je pense aussi que ce sont les deux corps qui étaient dans les décombres. Ce sont des femmes euh, C'est la famille Camara. La première dame est âgée de 94 ans, je pense, et la deuxième de 64 ans. ci wolof tënk rek ci wolof. waaw ñu ngi leen di sant leen gërëm di rafetlu seen taxawaay ak seen teewaay ah président de la république monsieur Macky Sall moo ñu fi yebal daar daar gannaaw bi am fii ci Parcelles Assainies unité 15. ci la ma woo ne ma naa arrêté sama participation ci conseil des ministres te ma ñëw fii directement indi taxawu état bi indi jàppale état bi indi ko famille Camara ma leen di fàttali itam euh, nguur gi liggéey na ba pare ci stratégie nationale de protection civile liggéey nañ ci ba pare dinañ ko présenter conseil interministériel ci lu gaaw ci diir bu gàtt nañ ko présenter itam euh, conseil présidentiel li na jàll aussi conseil des ministres ngir dogal yi ñu war a jël dogal bi mucc euh, euh, ayib yu am solo. ma leen di fàttali itam euh, lim nañ en tout cas bâtiment yi nga xam ne yëpp dañuy menacer ruine ci ñitu ci réew mi ba mu daj liggéey bu am solo boobu ñu ngi ko def ak administration territoriale préfet ak gouverneur ci gox yi ñooñu ci jàppale ba tey jii may wax ak yéen xam nañ exactement ci réew mi ñaata bâtiment lañ fi war a daaneel loolu aussi am nañ ci liggéey bu am solo bu ñu def ba pare. leneen li ma woon wax mooy rafetlu teewaayu état fii ñëw ngir jàppale famille Camara taxawaa Parcelles Assainies bi tax ma wax ko bi ñu ko yëgee automatiquement la départ bi ma yeg see fekk naa fi préfet bu gox bi mu ngi fi taxaw mu ngi nii sam wet fekk naa fi suu préfet gox bi itam fekk naa fi waa police ci lim gu mot sëkk fekk fi waa pompier fekk fii itam waa sami maire bi itam mi ngi fii taxawaayam rafet na ñu ngi koy rafetlu donc mun nañ ne ñëpp ñu ci waroon jàpp jàpp nañ ci ci daar daar euh, suivi bi nga xam ne aussi état war na ko indi incha allah bu soobee yàlla état dina ko andi ba mu moom sëkk dina ko andi famille Camara dina ko andi population Parcelles Assainies dina ko andi aussi ci réew mi yëpp. non mais ñu gis ne euh, li di am bari na ce que euh, nguur gi jël na ay mesures pour xool ñi nga xamante ni ñooy tabax kër yu mel ni jege géej gi ak yi nga xamante ni jegewul géej léegi rek maa ngi wax waxtaan ak préfet bi ma ne ko ah conseil des ministres bari na di président di wax ci wàllu protection civile ci yaatal waaye ci tënk ci batiment yi nga xam ne war nañ xoolaat seen taxawaay te lu ci bari exemple yi muy gën di jël yi muy gën di faral di jël Parcelles Assainies bokk na ci fu mel ni Médina fu mel ni Gueule Tapée nga am ay batiment yàgg la fii dafa tiim géej gi teg ci te fer bi ñu doon utiliser muy fer six bi ak fer bi mun naa ne faire bu bu jamono weesul mm-hmm. donc euh, soññ nañu en tout cas ci ñu baral liggéey bi moo tax ma ne leen léegi samay kaddu def nañu la stratégie nationale de protection civile du Sénégal ba mu pare loolu guleen la daanaka war nañ ko jëmmal ci daje yooyu ma leen limal yëpp muy dajëb jëwriñ yi muy dajëb euh, conseil des ministres ba nga xam dogal yi ci am solo yëpp war nañ ko mun a jël donc président moom lu ko yitteel la Euh, réew mi aussi euh, en tout cas état taxawaay bi mu war a def moom koy def. man nañ euh, ñaata victime moo fi am. ñaari victime moo fi am loolu laa waxtaan ak préfet loolu laa waxtaan ak maire loolu laa waxtaan aussi ak police ak pompier ak sami ñi ma fi fekk ñaari soxna la kenn ki am na ñeent fukki ak ñeent keneen ki am na juróom-benn fukki at ak ñeent ak ñoom ñaar ñoo nekkoon ci biir décombres yi ah bi ñu amalee liggéey bu am solo bi ak pompier ak police ak ñii ma fi fekk ñëpp génnee nañ leen ci décombre yooyu ba dugal nañ leen ci ambulance bi jëmale leen fi ñu leen war a jëmale donc lu ñuy méttit la lu ñuy ñaawlu la ñu ngi jaale famille Camara bu baax a baax di leen massawu di bokk ak ñoom tiis bi ak naqar bi di ñaan yàlla aussi ñi fi jógee ci anam yi yàlla xaar leen àddina ah yàlla aussi euh, aar en tout réew mi def fi jàmm def fi sutura def fi yokkute Merci beaucoup, Je pense que, je lu ma war a wax wax na ko ba pare. Euh, ngi koy gërëm bu baax a baax. mu ñëw euh, fekkee mbir mi ñu ngi. ñu ngi jaal famille bi ñaar dese ñoo en passe cinq personnes ñoo newoon si biir kër gi si mhm. cinq personnes bi mu amoon ñaar ñoo xam ñoo ñooy i yi mhm. keneen ki soixante quatre keneen quatre mhm. ñaar